jërëjëf Cheikh Mouhamadou Bachir daanaka jërëtul ma di ca ci dolli benn kàddu ndax kàddu gi matal na lépp sëkk fekk na rek eh, dellu gannaaw tuuti dana ci baax loolu fan koy tàmbalee rek mooy Cheikh Abdoul Ahad eh, liggéey bu rëy bii eh, lépp eh, gannaaw Sëriñ Tuubaa kenn jiituwu ko ca li ci am moo di Cheikh Abdoul Ahad da jóg rek mu gis leen xam ne sëriñ bi mu ngi ci yéen kon ma ma des naa wax ne Cheikh Abdoul Ahad moo feeñal sëriñ bi ci yéen ndax daf leen gis rek xam ne sëñ bi sëñ sëñ bi rek moo ne ci yéen mu jug yéen jëpp itam jëpp muy taxawal leen bu ngeen mën a soowu sax dàkk ci liggéey sëñ Tuubaa te yàlla tax la ca dolliku muy euh, dafa xam ne sëriñ bi na ci yéen ndax loolu moom xam na ko waaye fekk na itam Cheikh Abdoulaye feeñal ko feeñal sëriñ bi ci yéen moom def na liggéey bu rëy ci yéen boo xam ne amul fu mu yem wu fa liggéey ba jëm ndax moom moo leen tuddee xisbu tarqiya tarqiya nag ci la lépp nekk qad xalaqnal insaana fi axsani taqwiim summa radadnaahu saafiliin foofu la tibbe eh, eh, eh, pour wuy ndax suñu borom moo waxal boppam bind na nit na mu gën a jekkee na mu gën a rafete waaye coobarem dool delloo ko it ba mu gën a suufee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 ba ni mu noppaloo jee loolu ma ne su ko ñàkk a fàttali ndax yàlla def la loo xam ne eh, lépp tawfeex sëriñ bi la kon wax ji dafa mënut a ñàkk waaye mëtatu ko waaw ndax yéen jëf juy taxaw ngeen loolu wax wax aju aju ajootuñ ci wax ndax jëf ju jëf ju taxaw ngeen loo xam ne pàggute fi Sëñ Tuubaa la muy taxawaay boo xam ne itam nag diggante sëriñ bi ak boroomam kanawam gannaawam mënut a ñàkk mënu cee mënu cee ñàkk a def pàgguteef ndax liggéeyam bu rëy bii loolu la mu la mu ko bëggee muy muy liggéey ba di dox ba ca ba ca kanam ba ca kanam kanam boroom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 mooy ngeen xam nag yéenay kan ngeen xam yéenay kan xam seen bopp xam fi ngeen fi ngeen toll xam li ngeen jublu loolu yéen seen mas'uliya la ngeen xam seen bopp xam yéenay kan xam fi ngeen toll xam fi ngeen jëm ak li ngeen jublu loolu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 noo ngi leen noo noo ngi noo noo ngi leen noo ngi leen noo ngi leen di sant sëriñ bi gën a sant sëriñ wi ndax lépp mooma lépp mooma kon sant rekk nu war sant rekk nu war te sant gi duñ xam nu koy defee sant gi mën noo xam nu koy defee ndax mën nu koo sant Cheikh Mawal ba si wax na ko léegi xese bi.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 koo xam ne da doon nattu ak njabootam ba xam yow yow nañu wala yowuñu jox leen ak fetal leen diir leen ku ko jox nga diir loo gis nga gis naa nangam gis naa nangam moom ak si ka nga xam ne da ko ne gisuma dara loolu li ma diir mu ne loolu laa doon wut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 waa ngoog yàlla na nu suñu borom gën a gën a gàttandoog gën a gën a gën a gàttandoog tawfeex sëñ kon nag yoon waa ngoog jërë jëf sant gi sant gi moom ban leen xame dañ leen sante woon Serigne Touba sant leen cant gu rëy suñu boobam it dimbali nu leen tawfeex jooju am lu nu ci yàlla suñu boobam defal mooy tawfeex Serigne Touba da ngeen jóg rek ma am ci yaay ma ma sama xel dal ci yen ma am ci yéen yaakaar.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 dax eh, kenn ku ne ci yéen jëf na jëf ju rëy ndax ngir eh, ngir Sëriñ Tuubaa loolu lu rëy la kenn ku ne ci yéen jéego bu mu jéego mel ne Sëriñ Tuubaa rek tax moo ko tax a jóg kon nag noo ngi sant noo ngi leen di sant bu baax din leen gërëm di ñaan li may ñaan suñu bopp rek sun bopp am na nuy dolli yàlla noonu suñu bopp dina dolli taw taw fexe seen ci noonu yàlla na su yàlla na su moom di dolli suñu di dolli suñu tawféex di dolli taw tawféex sëriñ bi ci noonu waxtu wu ne moom laa xëy di ñaan ku ñaan rek ci moom laa lay mujjee moom laa xëy ba ba wax ba dëdd loolu moom laa gudd gudd loolu rek lay ñaan waaw kon nag jër ngeen jëf jërë ngeen jëf sant nañ leen bu baax a baax a baax a baax ci jéego yi ngeen jéggi ak jataay bi jataay bu yàgg bii ngeen toog. ñu ngi leen sant leen gërëm bu baax a baax a baax a baax waaw noonu suñu boobu gën a gàtt nag tawfiix sëñ Tuubaa ci suñu biir ak suñu mbir yëpp yàlla noonu suñu boobu gën a gàtt nag tawfiix sëñ Tuubaa kon dafa mel rek am solo dafa mel ne tawfiix sëñ Tuubaa dong am solo ah kon nag moom lu ñuy def nan ñaan rek dañ sax dàkk ñaan man sax looy ñaan rek yàlla noonu suñu boobu gën a dool leen dool loolu rek la loolu rek